بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وأمته وسلم تسليما ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بكي لما قصيدك سرين تبا جيم تنكي الله والله لو تي wax bax قصيدك nak dafa doon قصيدك am sëriñ Touba moo ko waxal boppam te xasida goo xam ne bëriwul bariwul moom jëmmi xasaayit gi kon ku ci ne war na ko mën a mokkal sëriñ Touba nee ne ku ko mokkal ku ne wëttu ko na ak alaxira dugg nga ci biir sange wukk suñu borom kaaraangeeg suñu borom boo xam ne kenn du la mën a lox waaw waaw ku ko xas mokkal ku ne maanaam mucc nga ci seytaane mucc nga ci bépp lor te du yem fii rek waaye nag mucc nga ci adduna ak alaxira te dugg nga ci biir sangewu suñ borom kaaraange te suñ borom ku ko ci biir kaaraangeem rek mooy mucc nga ci gépp ak lor ak lor gu mën a doon kon xasida gi nag ku ne war na ko mokkal ndax bëriwul juróomi bay rombut ko suñ bo euh, sëriñ bi tënkee ko jëmmi allah xasida gi nag boo demee ci diwaanu alfuyo daal yi moom it ko ci fekk mooy defe naa ne mooy xasida gi njëkk tax ci diwaanu alfuyo daal yi mu doon xasida goo xam ne bu yéemi la kon moom it ñi firi ko rek kenn suñu kattan di ñaan suñu borom ko wa laa fay ñu ci yoolu ku ko firi waaye yoolu ku ko mokkal itam fa tabarakallahu waaye fa tabarakallahu euh, ñi nga xam ne ñooy topp jotaay bi yëpp ak ña koy tasaare ba mbokki taal bi yëpp mën ca jot ñu mel ñi am ci yool boobu di alquran waxee ne inna la si du yuhiboona an tasi al faysa gis nga alquran nee ne kii siwal yu yu ñaaw yi na ko noonu ñaaw téef yëpp dañ cee am képp koo xam ne loolu ñu bër ne bar nañ koy bàyyi xel maanaam ki nga xam ne day siwal yu ñaaw na ko wóor na ko noonu ñaaw téef yi ku ca mën a jot ba bàkkaar fekk ko ci bàkkaar ba da nga jam waye kuy siwal lu rafet itam naka non la mel fu ni kuy siwal lu rafet itam yow mi ko yow mi def ak kiko siwol siwal ku ci mën jox momit dana am ci tiyaaba ji te lolu yonent bi sallallahu alaihi wasallam leral nako ci ay barab yu bari bari kon nak lu bax mom fum jibe rek manam nañ ko siwal ñu bax ñepp jot waye lu bon mom fum joge rek bu ci ku bax jote sa nako fay waye leele da ngay gis ñu naan ku partage di am nangam ku partage lo yow lu bon la lo yow nga ne ku bax nga yow ngay partage lu bon lu bax ni ni tay boko amé do ko partager dedet way fa ne nit ni partager lu bon ci liñ gëna contant ci di partager lo xamné lu bax kon na mat naa bàyyi xel xasida yaa ngi tàmbali fii mu ne bisimilah maa ngi tàmbale tur yalla arrahman buur bay xewlaa kon bépp mi nekk ci arrahim tay ajiram ku ko ci alaxira allahumma yow sun salli yalla nga dolli xel wa salim ta nga dolli barik ta nga dolli ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa maulana tay sunu kilifa muhammadin turu moy muhammad wa ali salatu bi ñew ba ci wa karam wa sang bi ak saabaam yi ne bisimilahi waaye nag julli ci jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak moko wa kërëm ak ay saabaam yépp mu ne wax fas yàlla nga wëttu kulla man képp koo xam ne xafisa mokkal na xaasil abyaati yi bayit yi nga xam ne dañ koo tënkee bi hurufillahi turu yàlla wi ay xarifa ay xarafam dañ ko tënkee te xam ngeen ne yàlla allahu la tudd ndax xal tax la mu sam yam wax naa leen ne tur wu ne way beew ñi way réet ñi danañ ko tuddee seen yàlla yi seen xërëm yi tur wu ne moo xam laa ilaha ak turu mën dal allah allahu rek ngay jang ci alquran bam jeex do dégg kenn ñu ne tuddee nañ ko ko ndax kenn ñemul ko tuddu yalla rek yalla rek mo tuddu allah Mata kenn ñemul ko tuddé firaaw nguro nga la muy waxut ana rabbukumullah wa ana rabbukumullah akhla kon nak kep ko xone ne mokkal xasidi gi duggu nga ci biit kaaraangeeg suñu borom go xamne kenn du la lor mo xam lor gi bay ko ci bindé fi la wala lor gi bay ko ci saytane wala lor gi koo ci borom bi tabaaraka wa la lépp ak mboolem pexe gu mën a doon na la wër na mucc nga ci ndem wëttu ba jëmee xasida gi ta bëriwul mu ne kon na nga wëttu képp koo xam ne mokkal na yi bayit yi nga xam ne dañ koo tënkee xarafu laahi nga xam ne alif gi da koy jël laam gi laam laam gi ak xëy yëpp fa tabaaraka laa bu ci ne mu tënk ci aw bayit te xam ngeen ne xasida yi kuy jàng itam bokk na ci lam lay jox muy defal la ijaaba muy suñu borom bay nangu sa ñaan fa tabaaraka laa xasida gaa ngi tàmbali bi alif gi la jël mu ne infas li wajhika alkarimi kulla man xafistil abyaata fi kulli saman mu ne yow sunu borom infas na nga wuttu wutu li wajhika ngir sa jëmu ji alkarimi ji aji tedd wuttul kulla man képp koo xam ne xafisa mokkal na tii yii al abyaata ci ay bayt na nga ko wëttu fii kulli saman ci biir bépp jamono maanaam adduna na nga ko fi wutu jamono ju mën a nooy rek kooku mu ngi ci biir kaaraangeeg yàlla maanaam loo mën a nooy ci jamono yi rek yaa ngi ci biir kaaraange ak yàlla ngir lan mu ngi juddoo ci sababu mokkal gi nga mokkal jëmee xataay géej mu ne yow yàlla wuttul waxut sax yàlla nga wuttu def ko fekk yàlla defal na ko sax ndax Sëñ Tuubaa bu ñaanee bayit ba mu cay tegaat moo lay xamal ni kii lu muy wax lu muy dagaan yàlla la waaye fekk na suñu borom nangul ko mu ne ko in fas na ndax wax naa leen xasiida yu ndaw yi ci la njëriñ yi sax gën a bëri ngir lan suñ tubaab dafa bëgg mbindeef yëpp jëriñu moo tax mu jën njëriñ yi yi ci ëpp mu moo tax mu ne ko in fas wuttul li wàccika ngir sa jëmm ci yàlla alkarim ji aji kat ji wuttul ku la man képp koo xam ne xafisa mokkal na tii yii ismul isaar la al abiyaat ci ay bayt ndax bëriwut na nga ko wuttu fii kuli saman ci biir bépp jamono léegi nag fu ne xam na ne yàlla nangul na ko ñaan gi ne ko istajib woo ko yàlla nga nangul sax waaye istajib na nga nangul lii ñaan ma xam nga si tuwaaw day dagaan yàlla day dagaan yàlla ndax koo xam ne dañ koy nangul bu noppi da ko wax na ko bindal istajib na nga nangul yow yàlla lii ñaan ma rabbi yow sama borom mi aji tarbiyaay ji waaye woowa jix yàlla nga jëmale fi la àllani ci lu feeñ wa sirru ak ci lu nëbbu iblisa jëmmi iblis ja li xeyri mu jëm ci ku dul man di wala ànd ko dëgg di daw moog jabootam yépp kon bokk na ci képp kooku mokkal xasaayit bi wut maanaam ci lu feeñ ak ci lu nëpp yëpp mucc nga ci iblis laxnatullahi alayhi mi nga xam ne ku jara muslu la ta iblis dafa doon kat boo xam ne xaj boo xam ne suñu borom da ko xirtal ci ñëpp rawatina ñu baax ni sax la koy yàlla di gën a xirtal waaw fa tabarak laaw ndax ñi nga xam ne moom dañoo topp yoonam ñoo ñoom xilif na leen ba dëpp waaye ñi muy bëgg a yàqal mooy ñi bëgg a baax kon nag dafa ma tabaay xal saa yoo mbokk na la moom sëri na la waaw iblis sëri na la moo tax ma ne istajib na nga nangul lee ñaan ma rabbi yow sama borom wa wajjih te na nga jëmale fii na àlli ni ci lu feeñ wa sirru ak ci lu nëbb iblis iblis li xëy ba jëm ci ku dul man bi walan ànd ko dëddu daw dem nga xam ne iblis léegi amatul soxla ci sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa jaaxal na ko tabaarakallaah mu ne ko yow yàlla lakk jëm na ci yow it ma an sama dal sama dalu fu aadi sama xol yaa ilaahi yow sama borom sama xol de kenn ci nekk ku dal gi mu am sakina gi mu am ak njàmbaar gi mu am lépp kooku kooku yàlla rek a tax ndax laa tax sani inna laa maana lam ci teg fa ansalallahu sakinatoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu waxee abubakar na ko bul jàq ndax yàlla mu ngi ànd ak ñun ci saasi la yàlla wàcc ak njàmbaaru xol sakina boobu maanaam lim ci jublu mooy njàmbaaru xol ndax xol léeg-léeg day jàmbaar xol mooy jàmbaar moo tax yàlla wàcc ak dal ci seen xol ya dëgëral leen fa tabarakallah ba nga xam ne amuñ lenn lu ñuy jàq ak lu ñuy tiit mu ne ko nag sama xol kenn nekkul ci ku yow sama xol lumdal dal gi ci ya sa ki Lakanyan yeb yow rek la yow na la sama xol ya ilahi ya sama borom itmaan an ak dal kon gis na tur rapi, wuum ne ko muy rabbi ak ilahiya fa tabarakallahu ta yow yalla wu kullu man kep ko xamne qasada jublu na xere ko ku dul yow di jam ku dul yow jublu ku dul yow jël xolam jox ko kooku def fa andana alaw ak ko mo a ku jublu ku dul yalla da nga alaw lolou mo wala wala sa xam nako ah wolof sax xamna ku jublu ku du yalla rek da nga alok wa kullu man kep ko xamne ne xasada jublu na khayru kurut yow ya, kooku fa an dana alok wolof ñi di wax an <laughs> dana aan waye fa an dana alok ku jublu ku yalla da nga alok ak ko ma doon bu ñu sun borom yi fas na nga wuttu illaahi yow sama borom sahiri sama saahir wa ma batan ak sama bir muy baatinam na ko wuttu minal mafasidi ci lepp lu yaq wa safita na nga selal wicc wa safita na nga selal li ñal ma alxaqan sama deun na nga ko ne sa borom na nga wëttu sama saahir ak sama baatin ci lépp luy yàq kon képp koo xam ne mokkal nga jëmee xasida gi maanaam mucc nga ci lépp luy yàq kenn dootu la mën a yàqal ku mokkal xasaayit gi na la wóor na loolu dalay toppaale du jëmmi sëñ bi rek waaye day royaat ba nga xam ne ki nga xam ne day jàng xasida gi te fonk loolu te mokkal ko fa tabaarakallaahu kookee loo lim jural sëñ bi yow it dala koy jural moo tax mu ne ko na nga wëttu yow sama borom sama saahir ak sama ma minal maxaasidi ci lépp lu yàq ba bu mu mën a yàqal waaye na nga selal li ñëlu alhaq sama dënd sama dënd na set wicc na doon dënd bu set wicc doon dënd bu am ay fatu ay fatu akbar war di ko dikkal kon loolu yépp day dugg ci biir ki nga xam ne mokkal na ko mu ne ko yeesu borom xam na nga may lii ñal ma xam nga du ñaan sëñ bi du ñaan de day dagaan yàlla nang ma may léegi nag du xoolal ma tabbi fii ka ci sa biir kaaraange waaye nag saa amman may borom mucc fii la haali fii ci biir adduna wal maali ak delluwaay bi tafa ëllëg yawmal qiyaam maalika saman yow yàlla mi aji moom jamono mu ne nag ma may nag ma tabbi ci sa biir kaaraange gi nga xam ne ku ci tabbi rek am nga sécurité yonente bi sallallahu wa sallam ci la ko yàlla ta ci la ko yàlla tàbbal te mooy wallahu yaxsimuka mina naas wallahu yaxsimuka mina naas kon nag ku mokkal xasaay gi la daloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dal bi ci ñaan gi kooku dalay topp yow it moo tax ne ko nag ma may ma tabbi ci sa biir kaaraange yàlla moom fu tabbi ci kaaraange rek mooy mucc nga ci gépp lor mucc nga ci lori nit ñi mucc nga ci lor sahir ak batin kon xasida gi ku ko mokal lepp lo xamne tabarak tabarik la dañ koy jël diko tek ni te mu ay métti lo naqar mo xam sahir ak batin yow mucc nga ci waaw loolu suñ baa ko waxal na fi baatab sirri wal xalam xasida lamuy gatt gatt gàtt na ci sahiri ak wama batan ko loolu yep day jox rek firndel ngëneelu xasaay gi mu ne ko habli lii na nga ma may ma tabbi fihi ma ci tabbit karage sa saa may borom ak mucc fil haali nag moom may ma tàbbi ci fil haali fii ci adduna xam nga wax ko adduna rek waaye wal maali ak ëllëg yomal xiyam maalika saman yow mi nga xam ne yaa aji moom jamono tabaraka barkel na wa taala ta tey aji ko yow yàlla amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabbal alamin yow mi borom bi jëfi subhaana rabbika tudd na ma sell góor bi rabbil hasate moom mi borom tedd nga xamaay si foona wala lépp loo xam ne dañu ko melal ci ay doom ak ci aju wasalaamun jàmm xaalal mursalina yàlla nekk ca mboolem mi ñu yónni walhamdu melu sax tàkk te rafet lillaahi aji sax lañu yàlla rabbil alamina moom mi nga xam ne borom bi def mbokk yi seen ndongal daara Ibrahima Seck moo baaxoon di leen xasaay sëñ Tuubaa yi nga xam ne njëriñ képp ci nekk mu di ko ànd ak yéen moo leen indiloon tey xasida gu am njëriñ gi kon nag it gi képp koo xam ne jàng na ko wala mokkal na ko ñoo ngi sàkku ci moom mu diñ ci fasaaleel bu baax suñu borom dugal ñi ci xab lii du xoolan fii himaaka saa aman waaye nag fil haali wal maali maalika saman kon xasida la goo xam ne lu muy gàtt-gàtt li mu làmboo ci ay njëriñ ngir baat yi sëriñ bi utilisé jëfandikoo ko ci ci wàllu turu yàlla yi gis nga indi na ci turu rabbu ak ilahiya ak ilahi benn rek la waaye tur indi na ci ñaari tur yi muy ilahiya mooy ilahiya mooy fa yàlla nekk fa yëf ya cosaanu ko ku moo tudd ilahiya bi mu wàccee nit ñi nag moo tudd rabbu mooy kuy tarbiya nit ñi ngeen da leen di tarbiya ngeen am lu mu soxla ci ñoom ngeen ñi ko di ko jaamu heure bu kon jëfandikoo ne baatal ilaahiya ak baatal rabbu te loolu man ngeen ne moo làmboo adduna waaye nag làmboo yombal xiyaam ndax bu fekkoon ne da nga naan yàlla fa mu nekk ci ab barab bu fekkoon ne dafa nekk ci ab waaye yàlla nekkul ci benn barab ilaahiya nga koy tuddee bu fekkee ne fi wàcc nit ñi kooku rabbu la soxla ci nit ñi moo tax mu ne qul la a'uuzu bi rabbi mooy ki nga xam ne day tarbiya nit ñi moom borom bi tabaraka bañ man koo jaamu fa tabaraka loolu moo loolu moo waral yi nga gis yépp ci lislaam ñu tëral ko ngir bëgg ñu jaar ci yoon wa waaye itam am yoo ne bëgg suñu borom tabaraka taala mooytuloo ñu ko mooytuloo ñu ko loolu yëpp ay ngànc lay nekk moo tax mu ji niñu ko moytuloo ndax yàlla lu mu moo gën fa tabarakallah doon du xam mbokk kon lii mooy xasida gi buñ ko doon topp dafa naa ay njëriñ ci nekk yëpp waaye daal jàpp na képp koo xam ne mokkal na ko suñ tubaa ko waxal boppam ne xab lii xoolam fii maaka man dànnal ma kon yàlla nu yàlla dafa digg topp subhanaka la ilma lana ila ma innaka antal alimul hakim mbokk yi gaa ngi bee ko fii ci